Vous savez, Tassette a toujours prôné l'idée d'un deuxième branche. Donc aujourd'hui, il est heureux de constater que tous les acteurs de l'élevage ici présents prônent pour un deuxième ranch, mais ici dans ma commune, Tassette. Mais apparemment, le problème d'espace euh, se, se, se, pose, le président Alusson l'a posé tout à l'heure. Est-ce que vous allez compter sur l'État pour une politique de déclassification ou bien la forêt classée, Non, pas de déclassification. J'ai dit tout à l'heure que toute la commune de Tasset, ça fait pratiquement deux ans, nous avons développé l'idée, nous avons écrit et développé l'idée d'un deuxième branche. Euh, le président de la convergence des éleveurs, Aliou Sow, euh, l'avait annoncé l'année dernière à Ranerou. Aujourd'hui, nous avons une forêt classée qui fait des, je peux dire même des milliers d'hectares, parce que y a certains qui parlent de 2400 hectares. Aujourd'hui, pratiquement tous les acteurs de l'élevage sont là, qui viennent des différentes, des 14 régions du Sénégal. Tout ce qu'ils ont prôné, c'est d'avoir un deuxième ranch ou à Tasset. Si on parvient à avoir ce deuxième ranch, le problème des éleveurs sera réglé définitivement parce que Tasset constitue un hub. Ça va régler le problème des éleveurs de la région de Dakar, des éleveurs de la région de Djurbel, des éleveurs de la région de Fatigue la région de Thiès. Donc, quelques encablures de l'autoroute euh, et de l'AIBD, euh, la capitale également. Est-ce que ce pas une menace avec les, la des promoteurs immobiliers Non, du Parce que nous, notre forêt classée, on a dit promoteur non grata. Donc uniquement un deuxième branche. Voilà. La Mais absolument, ça c'est un problème national. Euh, vous savez, le fait de faire de la forêt classée un deuxième RANS la une bonne partie euh, du problème de vol de, de bétail. Parce que tous les vols de bétail, pratiquement, la forêt classée constitue la cimetière des voleurs. Donc ça allait régler. Donc vous voyez l'importance de ce deuxième branche. Ça règle le problème du vol de bétail, mais en même temps ça va régler le problème d'un espace où tous les éleveurs se retrouveront et régleront le problème. De... Des, des, éleveurs en tant qu'acteurs de développement qui soutiennent l'action du chef de l'État, euh, qu'est-ce que cela vous inspire Mais Écoutez, euh, comme je le disais tout à l'heure, il faut savoir que je suis le secrétaire exécutif du PNDEL et le PNDEL est un partenaire de la convergence des éleveurs du Sénégal. Donc ça veut dire ce que ça veut dire. Partout où la convergence intervient, dans le territoire national, le PNDL est à côté. Euh, tey jii euh, taxawaay bi am nga ay euh, gan yu tànn kaset pour installer antenne départementale bu convergence des élèves pour l'émergence bu département bu Thiès lan mooy yëg-yëg bi ak si taxawaay bi nga leen war a jàppale si yan fan. waaw tey dañu kontaan lool di sant ak di gërëm vraiment ngërëm lu am solo. Euh, convergence des éleveurs du Sénégal bi tànn Tassette pour def fi tey cette journée bi nga xamante ni ci la ñuy euh, mettre en place le bureau départemental du département de Thiès et le bureau de la commune donc loolu moom dañ koy sant bu baax a baax ah ñëpp xam nañ ni ñun waa Tassette euh, ñu ngi doon def ay démarches pour que ñu defal ñu forêt classée bi deuxième ranch mais tey bi nit ñi jëlee kàddu acteurs yëpp a ngi fi jógee ci 14 régions yi ci Sénégal ànd ak Aliou Diboro mi nga xamante ni mooy président de la convergence des éleveurs tey nag ñun idée bañ doon développé maanaam pour ñu defar forêt classée bi nga xamante ni xam ñaari junniy hectares lañu wax ak ñeenti téeméer mat na ko tey euh, acteurs yi nga xamante ni ñoom ñoo ŋànk élevage du Sénégal président Macky Sall dénk ko Aliou Dembo bi ñu ñëwee tey dañ ko confirmé ni ah kon war nañ def un deuxième ratch mais ñu ni nag taset bi lañ koy def pour deux raisons ci département Thiès quinze communes moo fi nekk taset moo fi ëpp ay éleveurs taset moo fi ëpp ay euh, kii euh, ak jur mais beneen raison bi mooy buñ fi defaree Ranch de Dolly dina wàññi càcc gi bu baax a baax a baax parce que sàcc yëpp lépp lu ñu sàcc fii mooy seen cimetière ci biir euh, forêt classée bi lañ koy indi ca Tassette dafa nekk ci benn ëpp région de Dakar da ko wër ak région de Fatick région de Diourbel ak région de Thiès bi yëpp donc tey vol de bi da doon réglé wu en partie ci bis bu ñu jëlee forêt bi ñu def ko ranch de